ay wax Macky Sall na noppal boppam lii def jaru moom ak as as looloom di def mu teg foofu muy ministre de l'intérieur ñu noppal seen bopp ñun duñu ay préparé wuñu coup duñu ay terroriste ñu réew mi bon ay acteurs politiques yoo xam ne dañoo am suñu gis-gis bu safaanoog gis-gisam am suñu bëgg-bëgg ci réew mi bu safaanoog bëgg-bëgg te loolu mooy dem police ak gendarmerie ak armée ngir yalla c'est des institutions wala c'est pas des institutions way c'est des organes yo xamné c'est sacré dans un pays nañ leen génn ci ci dem na ba sama waa bo ñepp am psychose ñepp ragal ci wa kër du xalé yi du jigen ñepp dañu ragal parce que japp nañu ne ñu génnee bi am na ñuy topp seen gannaaw tey su ma teeloon intervenir kii ñu japp tay mënon nañ ko seen nit ñi police la bokk amuñu ko te ñaar ñiy ñëw saa su am na ci kenn koo xam ne sama voie sécurité dem nañ ko gis ni fu mu nekk mu ngi yor am gànnaay bi mu yor ci suuf kon kooku ñun kan moo ñu police wala gendarmerie wala renseignement kon tey su ma gaaw la interview bi nit ñi mën bàyyi yii ñuy fooyee. ñii seen sàkk te du kenn nag ku dul Macky jël lii lépp naan yaa ngi surveiller ay adversaire politique te ñi amoon yenn farata ñu war a dox yi rafetlu ci réew kon mbir maa ngi nii bi ñu xam naa ni bi ñu déggee ñu ne Ousmane Sonko ngi def laay wala tudd na téléphone bi la taal seen ko léegi dem waaye sax ba léegi ñu ngi fi taxaw ne nañu lii la jël si bu ñu dellu see nag téléphone baa ngi ñu delloo leen ko ordinateur ba sax mi ngi fii